88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 lu ñuy waxtaane bokk na ci teg gu tëj gu métti gi ñu teg ñenn ñi te kenn du leen daal di atte ak it lu jëm ci wàllub élection locale yi liste parallèle ñu tere ko ci coalition benn Bokk Yaakaar ban taxawaay ban jàngat ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Birima. maa ngi lay nuyu di nuyu waa yëpp. ñoo ngi lay fay Chérif. maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa allah azza mu aar Sénégal aar Amérique aar adduna bi Birima. Chérif. again bu ma bu ñuy wax. du dañuy Macky Sall président bu Sénégal déedéet mais c'est un échec que Macky Sall a fait moom ak président Abdoulaye Wade yëpp échec dañu dañoo échec tu te rencontres vingt quatre ans dans un pays yow nga ñëw amoo dara lay proposer say doomu réew lu ay Jakarta ak ay mbaam économiquement il a échoué politiquement il a échoué mais regardez-moi yow nga ne da ngay def découpage mais li may wax ni président Macky Sall amul principe you know ngeen jéggal ma ci wax ci mais loolu moom moo am loolu du saaga loolu dëgg la amul principe dañ leen ngeen xool vidéo yi président Macky Sall doon wax Abdoulaye Wade ci affaire découpage dañ leen ngeen déglu ko rek de 2011 mais da ngeen naan est-ce que parce que gis nga kilifa pour nga bëgg ñu respecté la. nga inspiré say ñi nga jiite pour ñu liggéey il faut nga am kaddu nga am principe mais loolu mooy tabax réew xoolal même développement personnel laa lay wax ne index bi développement personnel Sénégal daf ci dellu ginnaaw lan la def dem tabax ay lamba tabax ay stade bàyyi université yi nga xam ne ci foofu la koom-koomi réew di jóge koom-koomi réew di jóge ci lamb di jóge ci football ci ay université lay jógee mais kii daf ñu delloo ginnaaw Abdou Diouf sax a ko tane parce que Abdou Diouf au moins lu ñu doon tabax état mais moom dafa ñëw wàkkate lépp di Abdoulaye Wade defoon parce que moom dafa gu fi dara aéroport bi Abdoulaye Wade moo ko def courant bi Abdoulaye Wade moo ko sampoon bi muy dem mu ñëw àggali ko dafa gu fi dara. Chérif ah ah. Mhm. waa nekkuñ ci bilan ñëpp voilà jërëjëf euh, Chérif euh, ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. Birahim Ndiaye wala Birahim Diop. El Hadj Yankuba. yaakaar naa caa de moo lay ziar. delloo ziar. président Macky Sall réussir total la ñuy wax ñun sénégalais ñun duñu ay Burkina réussir total président Macky Sall 2012 ba léegi. la dole doole ko mooy di dénk askan wi dama leen daan dénk rek nañu bàyyee fitna ci wax nañu bàyyee fitna ci jëf fitna xajul ci kenn Birahim boo tegatee kenn nañu wax ci kenn bi moo gën di wax waxu waxu ku daan ci saret nii euh, di saret nag bu baax nag Adja Khady Faye di kenn ci Benno Bokk Yaakaar di kenn ci président Macky Sall di ngeen euh, soxnaas ngeen si yàlla sa Farba Diouf yàlla na ko yàlla yërëm te yeete ñu nekk fii ci caajaay Euh, li ma waxoon daaw ak daaw jee rek moom laay waxaat ci Benno Bokk Yaakaar am nañu njiit am nañu kilifa liste parallèle bi loolu mën naa ñàkk ci Benno Bokk Yaakaar dama leen noonu tabax jàkk ci biir jumaa na day bari julli ga du jekk mooy liste parallèle ci biir Benno Bokk Yaakaar da depuis 2012 ba léegi élection yi fi jaar benn benn xàccandoo la ñuy xàcc benn tegandoo la ñuy teg benn dóorandoo la ñuy teg mun a Benno Bokk Yaakaar kon su fekkee ne bëgg nañoo gañ élection yi duñu xeer duñu xuloo kenn ku ci ne kon ba nga dëkk gox ba nga dëkk quartier ba nga dëkk commune ba nga dëkk xam nga kala fa man xam nga kala fa sut koo sut ne ko njool mi kon nañuy xàccee ndoo di dóorandoo ni ñu am kilifa Benno Bokk Yaakaar dafa yàgg am kilifa mooy président Macky Sall ñaari mbër bu ñu nekkee ci géew jël am wala njaax am wala kenn daan arbitre moo leen di atte arbitre mooy kenn président Macky Sall ku mu nekkati loxoom kooku la kon nañu àndandoo di xàccandoo di dóorandoo ginnaaw bu loolu passé xalifa général ku mu yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. yàgg fi te ànd ñu daal di jël keneen ci doon vingt 88 lay doon 628 98 98. allo. asalaamaaleykum. Biraba Ndiaye yaare jàmm. Bala Njire. jàmm soom. Mbaye laay moo nekk ci buumu jokkoo bi. mbay waa ñoo ngi lay nuyu. di nuyu Alaaji yo bu Birama bëggoon bokk ci débat bi. Mhm. bisimilah naa bi ku man fi may njëkkee mooy président Macky Sall ce qu'il dit ce qu'il fait daaw Birama Ndiaye fi la ñu yàlla bàyyi woon daaw mbënd bi bi mu amee Kër ma Massar inondation yi fi la la fekk président bi mu ñëwee population yi ñoo ko ne dañu soxla département président defal leen ko kon ce qu'il dit ce qu'il fait bi ci topp mooy canalisation yi nga xamante ni camion mu ne daw jaar ci biir yow yaa ngi koy gis maa ngi ko fay def chaque 15 jour Omar Gueye mooy dem xool travaux yi contrôler ko bu dee 100 mu ne 100 pour cent maanaam 80 pour cent yi yegg na li ñu daloon daaw gëm naa ni ren bu ñu yàlla dimbalee du ñu dal gis nga njàmbat gi fi war ab jullit fekkee moo ko teg ani Ousmane Tanor mu laaw maire la woon ani sa Diallo bii mair la woon kon nee naa leen mbiru élection man yàkkamtiwuma si dara mais nag dafa am maire yoo xamante ni ñoom seen population ñoo leen soxlawaat ku ci maire li maireu Malika maireu Cambérène yooyu yëpp président Macky Sall xam na ko comme ni ko yànq boo waxee dañu xàccandoo dóora ndox ñii di wax ñëpp biraama billaahi kenn waxalu ci askan bi kenn waxalu ci as dañu am ku ñu àndal bëgg mu falu te faluwul président fi mu jaar ku fa jaar taxabat parce que ku yaru la ku teey la man looloo ma neex ci moom dañu koy jàppale fii boo xoolee biraama gars yi seen wax doo xam sax fan la leen di jëmee fii la fi ñoon taxaw naan président bu mu jox étudiants yi bourse kon ñooñu bu leen président déglu woon réew kon demee na neneen président Macky Sall mi ngi liggéey réew mi mi ngi dem ci kanam Sénégal émergent la woote cag-cag bu mag bi laa ko tuddee président Macky kenn du moom bi ci topp mooy mbiru booy jine xaw ma booy rab moom li mu def waru koo def parce que li ma dégg ñu wax ko ak yi mu yoroon matériel yi mu yoroon bëgg a daw police Sénégal police bu professionnel lañ xam nga kan laa xam ni dañu professionnel mbiru Adji Sarr bi ak Ousmane Sonko bi affaire viol bi ci laa xam ni gendarmerie Sénégal ñu professionnel lañ police bu la ñu am euh, euh, sécurité nationale kenn du ko néewal doole kenn du ko ñàkkal Mbaye Laye ca Cambérène ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Birama. Gassama. Euh, ñoo ngi nuyu ma la Gassama. waaw ñoo ngi lay fay yi dégg naa kii de mais yaakaar naa xanaa kii ci la bokk département yu bees commune ci la bokk waaw. ok léegi maam at euh, Birama li ñu wax mooy ñu ngi koy c'est très bien beau. mais il faut mu am li ñuy wax accompagnement bi accompagnement bi li ci njëkk mooy maire yi nañu xool marché ni ñu leen moderniser bi ci topp mooy gendarmerie ak police yi ñu fay def nañ leen defar ba nga xamante day ànd ak jamono lépp lu ñu soxla loo xamante ni day jublu ci nga jóge foofu dem ba Dakar nañ ko fexe defar ko ba mu ànd ak jamono leneen li mooy maire yi nañ xool ba li ñuy wax ci dëkk bi ni muy màggee ni ñu leen di changer li ma wax toujours nañu boole. ci quartier yi na état bi dimbali ngir yàlla yonent di boole li may wax toujours élimaan yi ak chef de quartier yi parce que élimaan yi chaque ajjuma nit ñi dañuy bàyyi seen añ ba añ ba pare dem ca élimaan ba julli ji ñoom yéen leen di boole ci développement quartier bi ak box bi ñu nekk nga xam ne ñoo gën a jege askan bi xamal leen le lii ñu fi def yéen a ko moom yi muy marché bi muy hôpital bi muy lii taxaw leen ci aar leen ko bu leen ko yàq il faut ñu nit ñi loolu leneen li ci des mooy mairie bi nañu dimbali ngir yàlla yonent bi néew gi doolee ñi yéen waa di Dakar leen leen mairie bi utal ay magasin kuy génne asaka ci mbay ku am xaalis di maye yóbbu ko fa nga xamante ni néew gi doole yi dem ba Dakar di fa tàllal seen loxo ñu mën a def ci gox boobu ñuy jot seen ndimbal weer bu dee nañu dimbalee ngir yàlla ak yonent bi gestuwaat askan bi yéen wax toujours nañu jàppale ñi ci suuf suñ bëggee Sénégal jëm ci kanam Damaso. jërëjëf Gassama woote ca États-Unis ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. ba doomi soxna yey fanaan. salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi leen di ziar bu baax sëñ bi. delloo ziar. alhamdulilah ah waa yéen dafa mel ni débat wu kaso yi ngay wax de yow. Ah, ci la bokk de. kaso yi de moom kaso yi de moom ñu nekk ci biir kaso bi moom wax dëgg yàlla dafa mel du ñu ay sénégalais. Hmm. ndax damaa xam ne am tolof tolof ak yoon ñu jël la teg la ci bërëb woowuñu la àttewuñu la du dëgg du yoon. Hmm. yàgg naa ko wax nag ñu nekk ci biir nekk ci biir ñoo ngi grève ndax seeni droit lan moo tax ñoo ngi grève ndax ñoom dañ leen fa ñu war leen a atte attewuñu leen ñu nekk si cukub caxab bi te yoon te ñoom ñooñu ku ci sa doom wala sa mbokk nekkoon ci biir lu mu mun a def lu nekk di ngeen ko lijjanti ba génn ko bàyyi leen doomu jàmbur yi ngeen di jël di leen sacrifier mbokk moomee wootee ca Amérique ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi noo tudd fooy woote. sëñ Ndiaye na ngeen def. sant ba baax alhamdulilah. Aliou Diouf Paris. Diouf Paris waaw. thème bi la sax euh, booy jinne ak euh, kii wala ak euh, nu mu tudd sonk aji Adji Sarr wala. Hmm, déet boobu bokk ci. Hmm? ah dama gis ko ci xaabaabal sànq de. de moo tax delloo nañ ko fu mu jóge woon itam. Hmm? ma ne delloo nañ ah? ko fu mu jóge woon itam. ah non kenn interpellé wu ko dafa wax lu ko neex. saaga wax waaw acca ñëwal waa ñëwal waa. waaw bon si kii bi lay wax tournée économique. tournée économique bi. man mënu ma ko tuddee tournée économique bi de. kuy woote tee nga déglu thème bi ñuy waxtaanee ñu jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 longue détention préventive yi la ñuy waxtaanee lu jëm ci wàllu wàllub découpage administratif ak liste parallèle ci élection locale yu ñu tere ci benn bokk yaakaar asalaamaaleykum. allo asalaamaaleykum. waaw Birama man la Anna Mendy di woote parcelle. Anna waaw. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waa Sud FM ma ne liste parallèle yi. waaw ah. day néewal doole coalition. kon nag ànd nekk benn ànd wax benn wax doxandoo xàccendoo dóorandoo président li ko may doole mooy majorité luy yàq majorité waru nangu kenn di ko fa def poids électoral moo am njariñ parti yi nekk ci biir benn Bokk Yaakaar am nañu ginnaaw goo xam ne luñ ca dolli dem ànd bi jig na leen jig na réew mi nañu ànd booloo liggéey li ci des jotagul bu jotee dina yomb opposition Sénégal xamuñu fu ñuy teg seen tànk amuñu argument yi ñu mën a opposé li ëpp ci askan bi Macky sàll lañu ñu àndal ku jaaxaan di bëri boo naa ub làmb ji du neex a gëm ku demoon ardo ku demoon ardo dinga nga delluwaat ardo benn bokk yaakaar bii ñuy wax tas yaakaar saa yu ñu demee ñoom saa yu ñu demee moom élection mu tas seen yaakaar bi ci def décentralisation ak bu jot day dox ay jéego jéego yooyu nag mu ngi dépendre ca na ca nit ña ca nit ña yokkoo ca gox ba département yi ñu defaraat yépp décentralisation moo ko laaj te it bàyyeeguñu duñu xool dañuy xool ndànk-ndànk di defar ak defaraat ba keroog Sénégal yépp di daj nañu ko ñaanal li mu mbëbët ci développement Sénégal yàlla jàppale ko ci président Macky Sall maa ngi koy maa ngi ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal président Macky Sall fi nga bëgg a eggali Sénégal ci lu baax yàlla na la ko yàlla may lu kawe sa njort ñun ñëpp nañuy ñaan jàmm moom bu waxee am na droit wax coalition am waaye coalition la wax benn bokk yaakaar waxul keneen defal ni forcé wul kenn te ñu am kilifa te mooy sunu kilifa ci côté politique kon ñun ñëpp dañuy ànd ak moom li mu wax yépp dañuy ànd ak moom ci loolu maa ngi leen di gërëm waa Sud FM di gërëm waa personnel de santé bi yépp Abdoulaye Diouf ak équipe am di leen gërëm tam. jërëjëf Anna Mendy ca Parcelles Assainies ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum allo. waaw maa ngi lay dégg. yow lañu ñu teew kooku. waaw ah, maa ngi lay dégg Maram Faye la di woote si Colobane. Maram waaw. bon euh, di wax ne Boy Djiné li muy laaj yomb na. Hmm. Euh, nañ ma àtte. franchement même bu doon dafa rey ni sax dañ ko war a àtte parce que mën ñu ko denc kaso bi bàyyi ko fa doomu jàmbur la comme ni ko ñëpp waxee. Euh, Sénégal xam nga ñan ñoo fi sonn. Hmm. mooy baadoole yi ñoo fi sonn. ay ji nekk am na ponk li Djiné yu mag yu ne ci réew mi di sàcc alal réew mi di trafiquer ay faux di jël suñ pétrole bi di ko jaay nañ jàpp jinne yu mag yooyu yooyu ñoo ñoo ñoo tàddal réew mi ay booy jinne yi ndaw ni sàcc benn portable wala sàcc benn dàll wala benn xar yooyu yooyu dañ ci sonal ay doomu jaamur yoo xam ni pendant ce temps réew mi ñi ko yàq xam na leen bu baax a baax a baax ñoom depuis ñu faloo ba léegi ay milliardaires lañ ay député yoo xam ni dañ leen di jàpp ay ay ñu yor ay malati xaay di ko rawale Europe yooyu yëpp dañ ko fi gis te kenn du ci wax buñ la jàppee nga dee dellu mel yooyu la war a bàyyi teg réew mi ci yoon ay ñoom booy ji nekk ay booy rab ak yooyu nañ jàpp ponkal yu mag yi nga xam ne ñoo sàcc alalu réew mi tëdd ci kenn mënul dëkk bi kii et dañ ko def prétexte pour masque avion Macky Sall boobu ak ak bateau boobu mu jënd. ñëwal waaw ñëwal nañu wax ci maaram maaram déedéet ñëwal ci thème bi rek. ay booy ji nekk. ñu yem ci thème bi bañ a xababal wala boog génn fi nga xamante ne foofu lañ leen daal di yemale. lu ñuy waxtaane longue détention préventive yi découpage administratif ak it liste parallèle Benno Bokk Yaakaar salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. El Hadj Ibrahima Ndiaye. waaw. El Hadj Ibrahima maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Saasi. maa ngi kontaan ci yow baax Ndiaye Diatta. jërëjëf. di la gërëm di la masawu. jërëjëf. jaboot nag moo mel noonu di nga boot ku ne. Mhm. waaye nag Oustaz Alioune Sall waxam ji ay dellu si rek maa ngi koy nuyu. nit ku nekk na nga toll rek na ngay àddoo ku wax rek feeñ man nag sama jëm rek mooy hmm. ci yi dégg ñi di ko wax Birama hmm. nit mënoon nangoo ne yow yaay sama kilifa dama ànd ak yow dama laa jox sama bopp nga ko déggal loolu mënta nekk kon ni nga xam ni danoo àndoon boobu ba léegi di ànd te joxe seen bopp am kilifa dana war a nangu seen kilifa li muy wax nan ko def ku ci bëggatula bokk nga génne carrément ni bëggatuma bokk mais nit ki moom doo joxe doo joxe moom doo cóolaa nañ nekk loolu waxtaan war dëgg ca la hmm. la ko doole ko mooy découpage moom fu mu jaar dina am drama hmm. ku judd di nga nekk ndaw di raam ak jàng dox ba dox kon ab dëkk bu demee ba am fu mu fu mu toll dagg ko ah ku ne jël sawal loolu aayul ci réew mi la bokk ñu fi nekk tey ay commune dëkk ñu ay commune ay arrondissement la yoon ak ay commune rurale tey nekk nañu di tàccu lan moo tax xam nga sax dina ko dagg séddale ko ku ne jël loolu mooy dëgg découpage du tey rek dafa mas a am man dama ko rafetlu la ko doolee ko nag mooy wàllu booy jinne ak détention préventive yi. Birama. mën na dugg juge mais nit tey mën na ko jàpp tey juge la tey mais kaw bu élément yëpp réunir man nag xamu ko tey mais booy jëmm na ko topp bi. ji dafa defaral taxawaay bi. réseau bi mooy daw waaw. waaw loolu laaj la dina am ñeneen ñu ci tontu wala boog ñu yëngu ci wàllu yoon ñu jël keneen biti réew 33 841 22 33. allo asalaamaaleykum. Birama waaw kooku. booy Malika la na nga def. sant bu baax alhamdulilah booy Malika. naka yitte yi. ñoo ngi sant. mais Birama. waaw. lu tax en 2014 élection lu tax euh, monsieur Macky Sall waxul woon liste parallèle yeeg yooyu dañu woon gox goxaan yi sama yoon nekku ci kenn ku ci nekk na nga dem sa gox kuy ànd ak na nga ko ànd cette fois ci mu ñëw encore ni liste parallèle man maay joxe liste yeeg naa nga pour quelle raison loolu la. Hmm. xam nga mooy li maam Cheikh doon wax rek. gis nga maam ku nekk euh, xam nga ko man sa baay mais teewul sa baay la gënal il n'a pas confiance en lui li ma waxoon nag dans l'opposition ni je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression Aliou yow bu ñu préparé gis nga Macky Sall mi il est prêt pour réunir la famille libérale ñoom ñëpp lay exclusif bi ci dàq leen gars yi accroché wu yëpp nekk fii di langaami ko ay PS ak ay ay Moustapha Niass moom bañ na ko ba jëlee rétropole parce que xam na fi mu jëm nag laa bëgg a nañu yeewu yeewu dafa jot parce que lii lépp ñuy def ñu dañ leen di nax dong réew mi kenn ku ci nekk xam nañu foofu moom amatul confiance ci moom moom ci boppam xam na ko gars yi yépp ku du mooyu fi mu nekk nii bala maa day ñuy wax fii naan am na ay maire yoo xam ne dañoo tax la maa ngi lay xamal daraama li ci kanam raw li bët am na waaju ma déggoon keroog mu naan yuuxu dina jib si fuñ ko foogoon waaye sëñ Babacar si ba waa ñëwee ci moom ni ko yuuxu jib dina jib fuñ ko foogoon mu ne ma masaak fañ ko fooge dem rek gis nga réew mi dellu ginnaaw la yorul tànki kanam tànki maam Cheikh Ahmed Tidiane mooy sama référence lu mu wax dina ko dina am nee na réew mi tànki ginnaaw lay am du am tànki kanam mukk ci këru àddina la moo waxoon njabootam rek bu leen natt seen tànk ci réew mi natt leen seen tànk ci biti parce que fii réew mi day dellu ginnaaw kii ko yor mënul dara tas moo tax bu ñu naan coow li du fi jóg coow ñoo fi coow li jógee te réew mi jagul jërëjëf Boy Malika ñu daal di jël keneen ci 88 628 98 98 te gu yàgg gu ñu téye nit ñi te àtte wuñ leen bokk na ci bu Boy Jinne ak yeneen i moromam ci biir ndungu si nii salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Cheikh Bourama Ndiaye kan da ngaa reer agut. Malick Cissé lu xew. ah non dama laa déglu ba xam ah defaral sa nopp yi. waaw d'accord maa ngi nuyu sama xarit Baye Omar Gueye man daal Bourama Ndiaye daal gouvernement président de la république monsieur Macky Sall carte d'identité yi nga xamante ni mënoo defar ba la war a daanoo carte d'identité yi nga xam amul tur ndey a yi gars yi changé ko carte yi Bourama Ndiaye. Hmm. da ngay gis seen Sénégal yi mais nit ki sama carte d'identité la mën a woo dafay wote ci Bourama Ndiaye day wote électeur gouvernement mënuñu xeex pourcentage de carte d'identité yi dañ noppal seen bopp bàyyi waa ji mu doxal asalaamaaleykum wa rahmatullah ba doomi soxna yey fanaanoo ku ci bokk joti fay ku sàkkana fay bi dante nunu dalu laay nunu dalu laay salaamaaleykum. salaam. Birama Ndiaye maa ngi delloo ziar. bàcc si. xëccal bunt bi mais Birama. bàcc dellool bunt bi. waaye ca delloo naa gaay bu ñu waaj jàmm. waaw waaw mais Macky Sall liste parallèle yi ñuy bañ ci benn bokk yaakaar la wax de waxul yeneen coalition de. benn bokk ko mën sa morom a a gañe. beneen bi ci topp. su mhm. ñu ne ay alliés mi ñu préparé rek nangam nangam ñun coalition benn bokk yaakaar ak Macky Sall. léegi ñun alliés yi nee nañu Macky daf ñuy nal daf ñuy xaw ma lan dañuy dañuy xaw ma ray ak dañuy waaw nit ñi bëgg nañ waaw liggéey lu mu nangu na te koo dagat la yow ñun ñooy allié Macky Sall ñun PS ak Macky Sall lañu àndal lu mu ñu def neex nañu lu ku nekk na ba kuy lijjanti am nga loo lijjanti ku nekk maire da ngaa bëgg mu jóge fa da ngay liggéey lu fa maire ba jógee am na maire yoo xam ne moom jëlee fa yómbu la jëlee leen fa yómbu wax dëgg yàlla na ñoo xam ne moom jëlee leen fa yomb na moom bëri ko ci mbarka pour ci mbalka sërmu daar nag benn problème daal am nañ ko ñun mooy état civil kuñ ci jàppale daal ñu jël maire bi fi ne mën na ko beneen bi ci def mooy poste de santé président moo ko mën li ci des yëpp nag ay affaire yu wax soxor la rek mais président Macky Sall ko fi teg saa bu jeexale nag dem te bu jéeralu du dem de du leen sax sonn nañ may ni jàmm Sud Nutrition moo ñu wutu ci toogu gi Marie Rosalie Ndiaye ñëw ak yéen ci 22h ci yaatalu xibaar yi ci wàllub français gërëm bu baax Alassane Thioune mi féete woon ci xarala gi ñu leen di ñaanal panaanub jàmm